asalaamaaleykum mbokk yi tey ñoo ngi fi am war a am entretien exclusif ak ki nga xam ne mu nekk El Hadj Nanga Ndao di consul général bu euh, Sénégal fii ci New York euh, monsieur Ndao maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. gis ngeen tey jii nga def idée bu am solo woote fii benn fan zone doomu sénégalais yëpp nekk ci New York ñëw fekkee seetaan ci match bi ban analyse nga am tey gannaaw suñu defet bu ñu am suñu diggante ak Angleterre. waaw d' abord euh, lii tradition la toujours bu ñuy am des matchs importants. dañuy trouver un moyen avec euh, nos compatriotes ñu daje ci benn lieu en communion ñu ñëpp ñu seetaan match bi supporter nos nos lions qui méritent tout notre soutien vraiment euh, avant de parler du match dinaa wax ci xale yi vraiment euh, ñu jàmbaare lañu ñu euh, voilà am jom lañu jëm nañ seen kéemtalaay kàttan depuis début tournoi ba léegi ñu ngi ñuy defal vraiment de très bons matchs tey malheureusement on a perdu football noonu la demee. On a été euh, confronté à une belle équipe de l'Angleterre aussi, euh, qui a été disciplinée et qui a joué un bon jeu, mais xale yi démérité wuñu parce que ay jeunes lañu xale yu ndaw lañu am na nañu seen euh, futur devant eux et avec l'accompagnement de l'État bi nga xam ne depuis euh, une bonne période <clears throat> en, en tout cas ñu gis ne vraiment au plus haut niveau le président Macky Sall mi ngi accompagner les jeunes accompagner l'équipe nationale ba ñu nekk à ce niveau de résultat je pense que bu ñu leen continuer encadrer continuer leen jàppale on peut euh, vraiment s'attendre des résultats en tout cas meilleurs dans le futur. Mm-hmm. ban message nga xam ne yàggul dana la doon renouveler comme bon moi je pense que loolu nañ ko bàyyi <laughs> nañ ko bàyyi fédération bi moi euh, c' est juste euh, l'avis d'un Sénégalais voilà encourager ko bon et puis euh, encourager équipe bi. et en espérant que dans le futur nañ def euh, des prestations yu mën a éliminer des, des grandes équipes comme l'Angleterre comme euh, d'autres équipes euh, de l'Europe et de l'Amérique latine. ndax bokk nga ci ñu naan absence su Sadio Mané bokk na li tax ñu teel a génn ci joŋante. Ah, ah forcément Sadio Mané c'est une grande star xam nga Sadio bu nekkul ci équipe moom da ci am impact loolu c'est sur mais nag xale yi wane nañ jom wane nañ ne que même sans Sadio aussi dinañ def dinañ def tout leur de leur pour que ñu euh, def une belle prestation représenter seen équipe représenter seeni couleur et c'est ce qui est important euh, maintenant on souhaite à Sadio Mané un prompt rétablissement moom it mu delluwaat ci terrain bi football et puis euh, moom pour personnellement mu man def aussi de très beaux résultats mais aussi éventuellement pour le Sénégal